asalaamaaleykum cher ami internet de la Saint-Louis TV maa ngi nuyu ñëpp di leen ziar di am mbégte ak contentement encore une fois di partager ak yéen seen émission nañ ko waxtaanee ah comme ni leen ko daan digee tey ñu indi leen benn invité bu spécial muy le griot no le griot noble l'enfant enfant chéri de la langue de barbarie ñu gën ko xam ci Boubacar Ndiaye fas yéene ko dalal fii tay suñu plateau Boubacar maa ngi lay nuyu. waa sista ana ma ngi lay fay ma ngi lay jox sa wacc wàccuwaay di am contentement si invitation bi di nuyu waa Saint-Louis TV wa di di nuyu wa Ndar waa Saint-Louis yëpp maa ngi leen nuyu ku si nekk di la jox sa wàcc waay waaw. Euh, comme ni ma leen ko annoncé léegi muy euh, l'enfant chéri de la langue de Barbarie. Mhm. Boubacar tey ñi la pour ñi nga xam ñu lay di la tout temps. Mhm. xamuñu kan mooy Boubacar boo ñu doon wax si yow Boubacar kan fan la jàngee fan la juddoo mhm. fan la et tout ça. Euh, Boubacar pour xam ko du lu ndax euh, ginnaaw bi mu nekkee doomu ndar euh, juddoo si askanu ngewal may nuyu euh, sama yaay sama papa sama famille yëpp ma leen di nuyu au passage Boubacar Ndiaye di doomu langue de barbarie juddoo sanc ba yaroo sanc ba gendar goxu mbaaj jange ah, um, jànge si axuraanu sëñ malik Mohsin Diop bi jànge école Alfred Dots jànge école goxu mbaaj waaw après mujjee si CM Abed David voilà ah màgg ma màgganoo ak ak ñëpp yaakaar naa man su ma amee ay xaritu tey tamit bëriwul ñëpp képp ku ma amal connaissance ak ak nii nii démb la woon waaw yaakaar naa pour Boubacar Dia xam ko moom jafewul quoi. Eh, ah. euh, nga doon ku ràññee lool si wàllu art macha allah. mën hmm. nañ ne ndar boo doon xool artistes yi gën a teg tànk dernièrement. Hmm. dinañ la limaale si biir. Hmm. art bi nan la la jëkkalee loo doonu la loo jàng la wala. waa xam nga nit ki li nga nàmp bokkul ak li nga for mm. ah, ñun dañoo judd si si askanu néewal si papa si yaay man sama wàllum yaay sama maam yëpp ay tambour major lañu sama wàllum papa tamit sama papa ñu doon ay doomu géwal mu nekkoon tambour major fii fii à Saint-Louis mm. donc aar bi nag moom duma ma ni jàngu jàngu ma ko parce que métier aussi di nga am loo si jàng mais euh, dama ko doon mu nekk sama deret foo ma ko bi ma nekkee xale man bi ma nekkee xale dama doon jàng rek dama doon wax naa man su ma su ma jàngi su ma màggee transitaire laay doon booba xaw amoon benn affection pour pour tëgg ay sa non su ma daan gis sama morom paay tëgg tëgg dama naa leen moo yéen seen yëfu yi man fekkuma ay tëgg sabar yi de xam nga yoo yàlla sunu borom noppi na dem parce que li ko waral mooy sam papa bi mu décédé après cela xam ne nag li fi sama bàyyi bàyyi woon mu nekk lu rafet lu nice damay ñëw rek foofu ma jël relais bi quoi. yàgg yàgg deesa la mos a ñam. waaw mosuma am bëgg-bëgg nekk ay tëkkat sabar bon mais mënoon naa parce que dama xaw ma woon sax la mooy transitaire parce que dama naan déglu Aliou Mbaye Nder mm. di wax way boobu mu naan man su ma amee sama doom transitaire lay doon mu transitaire dafa ma neexoon mu ne man su ma waxee transitaire lay doon waaw noonu la yee euh, ñu ñu commencé la gis nga commencé pas génn mais nga commencé yaatal sa art mm-hmm. di ci boole musique mm-hmm. mu doon domaine boo xamante ni euh, dëgg la boo nekkee artiste dina am di nga am benn facilité bi mais mm-hmm. doon dafa sensible tey jii nan nan la la dikkalee nga jógee si si wàllu euh, artiste percussionniste dem si musique nan la la dikkalee ak aussi yan yan xeetu ba xam tout début tout début a des difficultés yan difficultés nga si faral di jànkuwanteel ah bon Euh, ma lay remercier sa question bob mu nek question bu ma neex xam nga fi mu nekk nii Sénégal danoo xaw dano dañuy danoo nekk Sénégal bi nga xam ni culture ñi ko valoriser léegi bëreetul et donc man man man man tëggkat sabar la man man teug sabar mo nek sama xol mo nek sama sama dret xam nga euh, lu nek dafa war am la wara andal musique bi la neex neex neex loolu sabar ge kay def sabar lu mu bokkul neexul mitin sabar a koy tëgg ngénte sabar sabar a koy tëgg léegi nag gars yi dañ dem ba doon changé loolu une musique une orchestre xam ma d'habitude euh, musique boo ko daan dégg pour waykat yi la woon ñoom ñooy ñëw way clavier orchestre boo moo dégg waykat mais mais léegi aar bi léegi orchestre yi da ngay teg clavier teg guitare solo guitare basse teg marimba batisi bi xam

mënu mënuñu wax loo xam dafa dugg si xolu nit mais loolu tamit nekkul mën-mën la yàllaa la koy def si yow may yàlla nga xam lu boo ne a sax ñu boole ak sabar clavier guitare a googu dugg si xolu nit ma ñëw si difficulté yi ba léegi yaakaar naa ne aar ka ngay teexal ko difficulté nga ni bàyyi naa bépp liggéey boo nekk difficulté ka ngay teexale ko ak moom euh, rawatina nag nga nekk jeune mm. ñëw tombel ak say moroomi baay mm. say moroomi mag mm. bëgg li ñu bëgg wala yow nga ëpp leen ambition man neena ndar amul artiste bo xam mo ma ci gëna ambitieux man gis parce que sama sama gis-gis la la quoi nak yoy non bu bo jëlé bëgg nek au delà de tout monde par la force par la force da ngay jankontrel ay ay ay ay ay fay di nga mais nak euh bañ kat rek. da ngay bañ liggéey waaw persévérance rek amul loolu amul leneen. ñu gis mhm. mhm. neex ba dee muy soulagé. Mhm. Euh, concept concept clip accord ak xam nga ma leen ma au passage groupe chat xam nga son bi tëgg denc naa ko presque un an mois de mars daaw laa laa dugg un an.

di liggéey di di dugal dara parfois nu juga dem dindi lool ñun ñu ñu dugaloon defal leneen xam nga liggéey ko liggéey ko ñu toog ba benn instant xam ne fi mu ne nii gars dana war a soulager wu féexal xol yi xam ak mbas mi ñëw stressé ñëpp waa kenn ambiance tul kenn béggatul ñëpp mën ni gars yi mm. Sénégal ñëpp di soulager noonu la demee say fans yi say fans yi nga xam te lay bëggee depuis lool. Ah. avant que ngay avant que ngay way sax laay wax. nekk ah. nekk di tëgg ba tey ñoo ngi lay bëggee di la di la suivre. Hmm. lan la mën a xaar si yow ak sa orchestre dans l' avenir. que yaa ngi réserver ay projets yoo xamante ni di ko di parce que ñoo ñoo tax ñuy liggéey. Hmm. parce que xam nga tey dama jógee si benn monde war a demaat si beneen monde. Hmm. beneen monde gi ma newoon mooy tëgg sa kase dafa dafa am fu muy yam. tey am na ay kilifa yi nga xamni ni dañuy bëggee Boubacar Ndiaye xam nga donc ñooñu ñu ñëw si programme pour seetaan si Boubacar Ndiaye donc ñooñu ñi ngi leen di réserver ay ay genre soirée yi nga xamni nek soirée yi nekul soirée bo xamni ay sabar kasse ngay ñëw teg ko ci parfois da ñëw def soirée live Tak boy yi orchestre bi kat di may wax di bégal gaay ku nekk am sa wal ñi nga xamni programme la ni mën a gisee Boubacar Ndiaye ñëw programme ñi nga xamni ne si yeneen li ni ñuy ñëw Eh, gis bu bakkan jeex te te si xamul kebatukat moom moom kebatukat mooy taasukat taasukat boo xam ni da koy damay jouer taasu par mode acoustique amul genre musique bu amul te barke Serigne Touba loolu may yaa yàlla la macha allah lépp mi bëgg deen moo toog samay xarit ay ñoom la raquluxi ay booy rapport yu nekk sama sama koñ yuy dooree jug ma macha allah ma leen di ñaanal yaa dafa leen jàmm ñuy teg seen ay bit di si rab bu nu daanalee man ma jël ñoom rab la ñuy waxe man ma wax may waxe si si ngéwal booy ni moo comme ça que ni xam nga loolu lépp may yàlla daal waaw yee yee fu ne nga cof waaw eh, da nga da ngay bëre bagage ba fu nu la fekk fekk la fa projet yi aussi maa ngi si ay yeneen du ma xaw beneen single maa ngi ay yenen single fi lek dëwoon si heure bi inshallah allah bëgg na def sama premier album inshallah allah mom lolu mom loolu moom mooy sunu incha allah sama fief mhm. Boubacar Ndiaye ban ban affinité nga am ak ak artiste saint-louisien ah, parce que Ndar bari na artiste eh. surtout ay jeunes talent ay ban ban ban genre euh, euh, ay ki démarche nga am ak wa jam ak salam bi ñëk amul man ci bu Boubacar Ndiaye bo ñëw ci man amul ben artiste bi nga xam amna am naa ma ak yow dama disponible si artiste yeb te lol yaakaar naa war ngeen tek seen beut kep ku si joué dinaay jaante yak samay nelaw del sama transport dem te duma fa séntu un franc parce que man dama am ben affaire bu nekk man moy man damay sot est deug damay sot artiste yi ñep ñep la dem seen ay concert amul amul du ma amul xaaje seen même su ma ñëwee te gisuloo ñëw naa taxaw assister pare ma dem artiste ndar yi moom ma ma di nuyu au passage ñom ñëpp bëggu bëgguma lim nuyu na artiste Saint-Louisien yëpp oui euh, si si si parmi ñoom dañ si remarqué euh, benn groupe boo xamante ni. Hmm. mën nañ ni sa sa relation ak ñoom dafa dafa visible moo gën a fës. Hmm. muy waa gone yi. maa ngi leen di nuyu de passage ñoom Papis Diarra et autres. Euh, ban ban genre relation nga am ak ñoom parce que à chaque fois dañ gis seen ay concert. Hmm. seen ay yenn yenn spectacle yu clip yeeg yooyu des fois aussi dañ la siy gis ba léegi sax say biir wax yaa ngi koy wax. nga sa.

Euh, si kaw loolu papis baay buuf si del jaar si conseil yi ngay def ma ko waaw waaw waaw un yàlla dogal ma dem fekk leen maillage club si euh, journée internationale de la femme le huit mars yaakaar naa la tombeloon ma wax fa affaire taasu fa ambiance ñoom ñu sent sentir ne que lii nii xam neex neex na leen te aussi neex na seen ci public quoi ñu ñàkk ki ñaan loolu heure bu ñuy jouer Boufs après ñu dem euh, dakaar Sorano ma dem fa yëngal Sorano gars yi apprécier ñu Boufs ba il faut nga ñëw di si jàpp xam nga ñu koy wax waxtaanee xam gune yi ñoom euh, noonu la demee samay may nuyu sama papa Jara ak sunu maman Papis Théo Bayla ñëpp ma leen di nuyu moom ñoom ils sont spécial vraiment oui ay nit yu baax vraiment aussi tey jii nii ñuy gis benn phénomène boo xam ne dafa dafa dafa ñëw si àddina bi muy coronavirus mu affecté lu bëri. surtout si wàllu art. parce que eh. boo xool Sénégal artistes yi ñoo artistes yi ñoo hmm. dox ba mu des wàllu art. Ah. yéen tey jii koy dundee. waaw mais xam nga d' abord ah, dañuy sant yàlla ba pare parce que mënoon naa gën a metti euh, artistes bu ni affaire bi laal la rek dafa fekk ni am nga si leneen loo jàpp parce que ñun aar moom mooy sunu liggéey depuis ba nga màggee xàmmee ba léegi nga da dañuy investir si aar matériel yii ñuy yore barke alxuraane karim tey sama kër mën naa ne bu jegewul ay millions mën naa ne million mi ngi fa parce que matériel bu nekk jarul bu tuutee bu tuuti dix mil francs la jar wala quinze mille francs cest clavier bi ngay joué rek dafa 300000 lay jar 150000 200000 nga bolé ko sa ay sabar kon donc investir nga hmm jël jël sa temps dem studio di liggéey di enregistrer pour bégal nit ñi parce que nit mënta bégal bopam cest à ñu ñu ñu ñu investir ci art bi di jaakaar di jouer tous les week-ends macha di am di fay suñu location ñenn ñi.

tayji ni yow lan ngay wax ñoñu nga xamante ni dem nañu pour pour pour tarbiyu lolu ci àll bi. bu hmm. ñu démé ba tollu yeen niveau yi ban ban conseil nga leen di jox parce que tamit boy xol jeune talent yi nekk ndar yépp dañu souffrir. Hmm. studio bu baax bo enregistrer sax daf lay jafé hmm. waxatu la ak ay ay caméra wala autre chose tay ñoñu lan ban conseil nga leen di jox pour ñu déllu ci jàppale jeune talent créer ay maison de production. pourquoi pas ay label pour jàppale jeune talent yi nga xamante ne ñoo fi nekk. xam nga ana yaa ngi yaa ngi may posé ay questions yi nga xam ni billaahi wallaahi xamoo sax li la ko posé loo euh, dafa am suñu ay xam nga nit li jiitu si nit ki xam nga mooy lan sa base nga nit ki boo fexee ba gagné sa base gagné sa base nekkul ni da ngay romb nit ñi cent franc wala may leen fukki dara wala non do du question de loolu de mooy seex ak nit ñi mooy imposer leen yow li nga yore ñeme sonn ba pare imposer leen ba pare wóolu leen ñoom

ndar dafa am loo xam danoo dan koo tàmmoon te tàmmatuñ ko génn bu bu ñu génnee sam ne xamatuñu fu ñu jëm changé mais léegi gune yi dama leen gën a encouragé barke alxuraan parce que ñoom ñoo ak texte texte moom tamit moo koy encouragé bu parce que tax nañu léegi ndar léegi samedi ku si nekk wala vendredi ku ne xam ni fii nga war a jëm mais ñoom ñi dem bu ñu ñëwee fii te ndar moo wax dara li artistes yi bëri yëpp ku nekk si nekk am nga sa

si wàllu art a culture après ma mais aussi maa man maa ngi si loolu man maa ngi am projet boo xam ni ndar la xam nga mais aussi suñu autorités yi il faut il faut ñu jàpp no il faut ñu jàpp si may nu tuuti jàmm aussi quoi bu nekkee si noo dëgg la am na loo xam ne il faut nga teg ko wax quoi autorités yi parfois dañuy génn. parce que ñoom yaakaar nañu booy tëgg ay concert rek peut-être yaa ngi siy lu jeex. mais mais mais mais mais mais affaire bi àggul foofu nit ñi xam nga xam nga xam nga fii ndar. warul woon metti sax parce que ndar dafa ndaw xam nga euh, am na ñoo xam ne guddi la ñuy liggéey xam nga mais tey boo ñëwee samedi jot ramas yi taxar naase doo sawa sawar a génn da ngay jouer benn saa nu ñëw arrêté xam nga programme da ngay jouer nu ñëw parce que dootoo am envie te ta mënoo def dara mënoo jël gaal yi dem ñun boo demee ñun la bu leen dem j'espère que j'espère que ñoo ñuy dégg ñoo ngi ñuy seetaan. non mais ñu ngi leen di ñaan ngeen ngeen ngeen nu ñu joob bois de ñuy joob yee noonu la demee waaw. Euh, dañu damay ñëw su suñu dernière question. Mm-hmm. Euh, sa gox di langue de barbarie parce que doomi sànc ba nga n'est-ce pas. Euh, di jànkonteel ay ay jafe-jafe yu métti chaque année population bi fa dëkk mooy les pêcheurs. ba eh, at mi ñu génn ñu gis benn phénomène bu dellu si waat muy immigration clandestine mm-hmm. ndax tolluwaayu jamono ni mu fa jamono bi ni mu fa méttiwee ah. tey jii yow ana ana ban message ngay ngay jàlle état par rapport a condition de vie nga xamante ni population ba ñoo ngi koy dund ñoom aussi lan lan nga leen di wax en tant que jeune euh, digne mm-hmm. euh, jeune jeune fils de de Saint-Thiaba mm, xam nga bëkk démb rek maa ngi woon si benn télévision ñu invité ma mm-hmm. euh, ñoom lii du seen question laaj nu ma lii sax mais ma wax leen ñi leen langue de barbarie boo waxee pêche langue de barbarie la fekk baax asiant yi dégg ma ne koy nit nag boo ko bëggee encouragé si mu liggéey da nga koy jàppale fekk ci que si li mu li mu bëgg bël bi encore une fois de plus li muy rey si ay doomu mool doomu langue de barbarie xamul nu mu doon asiant yi dégg euh, digue de protection yi kër yi muy yàq euh, géej gi kenn xamul lu mu doon mais ñun laaj ñu leen ay millions de laaju ñu leen ay ay ay gaal ak mës mën nañ ko joob dem géej ñëw jënd gaal jënd machine liggéey seen xam lu bëgg. nanu barke alxuraan bu président bu président gënante ñu eh, dama bëgg gendar di génne leen seen budget bopp liggéeykat yaa ngi nii wallahi balaa délai di mat ñu génneel leen yaa kon nan nu jàppale nan nu jàppale man su dee lox ma naan nan nu jàppale parce que man damay sentir ma nekk man man doomu mool la doomu gendar sanc ba gox mbal la moo tax ma naan nan nu jàppale ñun quoi damay teg aar bi sama liggéey dama ma koy tege ne parce que am na nu ñu ko war a waxal yaa ngi dégg noonu la demee. macha allah tey hmm? nii lan ngay lan lan tàggoo lan ngay tàggoo say fans say am di jàmm say mbokk yi lay seetaan. waa di leen wax di leen gërëm di leen sax parce que boobu ba léegi ñu ngi jàpp te woo bàyyi boobu ba léegi ñu may bëggee ñu ngi jàpp te woo bàyyi dara man xale laa kese damay soog a door ñaanoon yàlla fii fi ñuy dégg Michael Jackson ñu dégg fa Boubacar Ndiaye loolu laay ñaan yàlla suñu borom te fu ñu fa déggee Boubacar Ndiaye ni nga fa dégg sant ba genn gox mbaaj Saint-Louis Sénégal kon loolu laay ngeen yokk ñaan rek te bu leen xeex bu leen xuloo waaw Boubacar Diagne nit nit ñi la. amul leneen ok ma leen di remercier encore une fois de plus di ñaan yéen tamit seen télé bi ñuy ñu ñu koy dégg partout dans le monde incha allah. te ami internet maa ngi leen di maa ngi leen di di jaajëfal leen di leen di leen bëggawaat si teewlu bi ngeen doon teewlu seen émission nañ ko waxtaanee tey nag j'espère que kontaan ngeen ah parce que seen doom lañ leen indiloon ah seen xarit seen seen mbokk muy li mu fi développé am na solo trop moom aussi maa ngi koy remercier bu baax si si teewaay bu ñu bu ñu teew fii tey donte jamono xam na temps bareetul et tout ça maa ngi koy remercier bu baax a baax di leen euh, jox dig daje du yàgg dara si seen beneen numéro bu seen émission nan ko waxtaane merci et à bientôt